to 21 years in prison for killing 77 people. That brings us to the end of the news. Thank you very much for your time. We'll see you again at 2200 hours with more news. asalaamaaleykum mbokk yi ñoo seetaan ñu ngi leen di nuyooti di leen sargal ci programme yi ñu ni neen la euh, bés bu ay bële nag gisoon ngeen waxtaan wi nga xam ne moom la lañ leen indiloon mu aju ci mbiri fitna ak doom aadama loraange gi nga xam ne moom la ko indil ak bépp façon fitna bu mun a doon nag euh, docteur Aliou Guèye dégg ngeen li nga xam ne moom la doon wax ñu digoon leen nag ne buñ fi dellu waatee tey dinañ leen indil fànn gi nga xam ne eh, laajte ak tontu la boo xam ne ñu ngi ko séqa suñ diggante ak docteur Aliou Guèye mu doon lu ama am solo bon nag ngeen toppañu ci programme bi dañ ko gisee comptable dafa am ko bëgg a laaj bari fii ñoo wax ne ko ko laaj am fitna di lekka-lekka gu bari ak am fitna di ñàkka lekka dañu doon laaj docteur Guèye ban nga foog ne moo ci tane parce tane laa nekk da du ñu ne bii moo ci gën ak itam nga am fitna di nelaw rek di nelaw rek di nelaw am fitna boo xam ne doo nelaw gay njoor dañ ko nga dimbale ñu parce que xam naa la loo ñu ci tontu rek loolu laa nekk gay dama noonu du ma wax te jërëjëf yal na yàlla guddal fan yi Fatou li nga laajte lu am solo la man suma yaay sekk la sant su ngeen yi duñ dee suur njëkk laa tontu ci boobu loolu li ñoo wax ne ni nit ki mel sa make-up moo dee détermine ndax fitna gi daf laa doo lekka wala mu def la ngay lekka lekka gu wari ah, feebar benn baaxu ci mhm. waaw loolu laa laa tontu benn génnul sa morom nit ki su loo loo mun façon ngi feebar boo mun di am rek dañ la war a faj ci feebar boobu ki ki am fitna ba duy lekka na dem gis ki ko mun a faj muy doktooram su ko defee dina ko wax ni moo def ba fitna gi génn problème bi du ñàkk a lekk problème bi mooy fitna bi fa nekk mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. su fitna bi demee dina mën a lekka su fitna bi demee tam daa lekka lu bari dina ñëwaat normal so benn tey benn wax ji la rek fitna gi mooy base bi mooy li mooy li ci suuf mooy li li ëmb yëpp nga baal ñu ax Guèye ñu ngi kontaan bu baax fitna ak high block nga xam ni pression nan lay defanteeg fitna te lu ci ëpp ci jamono bi ñu bari su leen di high block di daaneel day fekk ñoom ñu nekk ci fitna muy ñuy dox ba sonna wala ñu mer loolu yépp pour nga xalaatal ñu ci waxal ñu ci li nga xam ni daal comme ni ko aji fat sekk bugg a bàyyi waxee rek deret gi suy daw tombee si dit yaa ngi dégg li moo def dafaa def pression bi dem ko soo amee fitna deret sa xol bi dafa doo bu baax doo bu baax boobu noonu mooy mu ngi génnee deret gu bari loolu dafa yokk deret gi mu dem ci kaw te deret gi fi moo ngi gën a njëkkaa dem mooy ci yuur gi te yuur gi nag sidit ya fa nekk fi deret gi aw nekkuñ yu yu dëgër lool dañ mel ni euh, ballon rek noonu lañ mel so su demee ba mu dóor dóori amin ba mu pompe deret gu bari li moo dem mooy daf leen a tas su ko defee su leen tasee nag loolu tax nga am li ñoo wax stroke hmm. benn benn wet gi dee wala ñaari wet yëpp dee ñeneen ñi nga gis ñuy nelaw ñu unconscious for weeks and months ñene ñi jóge ci faatu loolu mooy li xam noonu la fitna gi di def so di nga gis ne ñeneen ñi su seen ñeneen ñi mun naa am sax ne dañ am high blood parce que high blood bi lu ko indi li koy li ci ëpp yëpp fitna la day doon te daf day nekk fitna jaama da ngaa gis kuñ jox liggéey ES léegi maanaam docteur mm. Sidibé xam na koo xam ne yelloo nag liggéey bi waaye su ci eggee rek ci bés boobu a nga gis ni moo mu tiit mm. comme ni ngeen ma ooyee fii rek maa ngi xalaat tiitagu <laughs> waa léegi waaw du ko defee di nga gis ah, maa ngi toog a njóobeen ni gis dina xala eeg tuuti mm. waaye si yàggee ba nga miin place bi di nga gis mu wàcc mm. waaye duñ la joxee liggéey bu ees boobu noonu ba pare ki ki ki la war dimbale ñëw yokkal la ci fitna. Mm. da ngaa gis yëpp yi di yokk di yokku di yokku di yokku yooyu garab mënu ci dara. Mm-hmm. loolu toog waxtaan ak nit ki la. Mm-hmm. outlet waaw du ko defee di nga gis mu wàcce. Mm-hmm. yàlla daf ñu may loo xam ne euh, ci jigéen la gën a bàyyee te yéen jigéen ñi nampal. di ngeen ko xam yàlla dafa may nit ñi euh, hormone bu ñoo wax oxytocine oxytocine dafa nekk ci yuuri nit moo la dee kontaan loo. li tax may leen ko man góor laa du ma mos a xam lii waaye dama ko jàngee ci kayit dinañ ma dee wax ne yaay juy nàmpal doomam mhm. toujours dafay kontaan mhm. waaw su gisee doom jiy nàmpal mhm. toujours dafay kontaan te loolu lu ko waral du du xëy cofeel la waaye dafa am lu lu yuur gi dee defal ñuy ko wax oxytocine su ko defee looluy tax gis kontaante gi ñëw dem ci liggéey bu ees loolu la la yàlla di def mu bari ci yow muy góor muy jigéen ko defee nga kontaan waaye boo demee bañ indi la ci fitna rek. am na nu ko yàlla day def dafa tëju. day tëju ba pare su fekkee ne mu ngi doon génn noonu di lay kontaanloo nit forcé ko dafa mel ni rek nga dugal sa kër yaa ngi kontaan rek ñu ne la diw sàngam gaañu na. Mm. da ci day jëlee stroke. Mm-hmm. voilà parce que su tëjee noonu su tëjoo tëju boobu. choc mu ibeekooti. Mm-hmm. Mm-hmm. léegi léegi borom xam-xam yi wax nañ ne du dee ibeeku ñeneen ñi ne dina ibeeku ndànka ñeneen ñi ne. léegi-léegi muy léegi-léegi mu tëj loolu nag lañ war day moytu am na sa naxar boo xam ne ni nga ko war a waxee nit comme ni ko suñ kilifa yi daan defee dañ laa mm-hmm. oo yedd la waar la waar di wax a yow danka nga daal wax ji yow sax bu si sa nga xam ne ñu ngee dem si si lii mm-hmm. am na fekk yow préparé nañ la te bunte boobu li la war a kontaan loo ñàkkati mm-hmm. ñoom xamuñ ne loolu la def waaye lii lañu ñu ñu woon mm-hmm. ci suñ jàng ak ci suñu xam-xam mm-hmm. soo li nga laajte lu am solo la high blood dëgg la am na yoo xam ne amut kenn xamut li ko dee waral si high blood li ci ëpp ñi ko wax essential hypertension leneen li ci gën a bari mooy lekk xorom su bari si waaye ñetteel bi mooy fitna gi so te high blood boo xam ne fitna bee ko waral mooy um, so yéen ñi am high blood wala ñi ko xam dafa am ñaari binda binda yu ñu la dee wax bi ci kaw ñu ne la 140 ak bi ci suuf mm-hmm. boobu la ñuy wax systolic ak diastolic pressure mm-hmm. ñi am fitna nag bi ci kaw mm. moo dee gën a yokku mm. waaw so di gis ne man su ma la gisee nga am pressure comme nga mu nekk 200 over 90 dinaa la dee laaj mbaa kër ga neex na mbaa lii mbaa la de ah. suñ la mm-hmm. óoloo dinañ ibeeku di waxal di waxal soo demee ba mu pare nga jëlaat pressure bi. dina wàcca mu wàcca dina wàcca mu ne la docteur docteur Guèye yow man xam amuloo la da nga ko jënd a mm. mm-hmm. ki la ëpp mbooloo. moo la a tuuti mm-hmm. Mm-hmm. a la joxee waaye mun naa ko wax sa tuuti. Ah. Ah, yaa ngi ko yombal waaye li nga laajte lu am am solo la diabetes ci boppam dafa indi stress donc xaw ma naa si anam boobu nga bëgg a ma wax mhm, mhm. waaw waaye mhm. beneen bi tam stress mun naa indi diabetes lan la bëgg waaw um, diabetes dafa nekk feebar boo xam ne daf fi tumaranke woon te te ni fi tumaranke